ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre di bis bi nga xam ne moom lañ jagleel télévision ci biir àdduna waa Mbàkke Bawol di wax ne ñoom seen xol seddul benn yoon ci yenn ci télévision yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal. ñu war a moom bari na am na programme yoo xam ne wax yàlla baax na waa am na yoo xam ne daal moom waaw li ma ci gën a metti mooy po mi musique bi daal lañ gën a favoriser xale yi fi nekk nii jàngatuñ defutuñ dara koo ci gis day jàng xale lu mu tuut tuuti waaye woo teg ci télé bi mën nañ ko génne. di ko way te loolu nag baaxul ci askan bi tey dañoo doon réew moo xam ni a ah, quatre-vingt-quinze pour cent musulman kon nag ñi xam ñoo nekk ci réew mi te xam ne ñooy yoro programme bi war nañu xoolaat loolu baax ah ndax askan wi wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne fi mu nekk nii ñu ngi koy dund tam am ñoo xam ne ñoom loolu neexu leen tey war nit ñi li programme bi xam ne moo baax. booy xool la matin ba jusqu'à le soir. li am intéressant ci télé yëpp ëppul une heure de temps euh, par exemple euh, télé war nay mën a joxe loo xam ne si euh, day def éducation ci xale bi jàng day def édu day def day éduquer mag mi toog di seetaan télé li ma ci njëkk mooy film yi am léegi ak série yi am léegi ak théâtre yi léegi dafa vulgaire de trop te loolu baaxul ndax dañ ne réew xale yi ñooy relève bi kon suñ bëggee réew mi baax ak yàqu-yàqu yi am ci réew mi ak problème yi am ci réew mi dañu war a tabax tabax boo xam ne si xale yi buñ màggee li fi nekk naqari ñu danañ ko fi jëlee loolu nag ñu ngi ko mën a jëlee ci xale yi nan lañ ko ciy jëlee mooy ñu leen di éduquer won leen am nañ fi ay symbole Cheikh Ahmad Bamba Cheikh Omar Foutiyou Tall Ma Abdou di résumer li xam ne si ay nit ñu baax jaar nañ fi histoire réew mi ay Lat Joor Jóob am na solo di leen ko jàngal même li ma gën a naqari mooy xale yi mënatuñ jàng parce que xale bi day copier mu commencé ci cahier bi muy jànge lépp lu mu ci gis day gëm ne loolu ci la mën a réussir kon dama gëm ne war nañ xoolaat bu baax programme mu yi am naa lu ma ci naqari trop nag. dañoo war a fësal njàng ak njàngale tey jii bu dee da nga njàng ak njàngale boo xamante ne moom mu mu méngoo euh, dëppoo ak diine waaye bu fekkee da ngaa jël série yoo xam ne ay série mexicaine wala yoo xamante ne ñu nga jugee xam ne du suñu culture ay xale yu ndaw nga gis leen ñu yor sàngara wala euh, euh, yoo xamante ne na ma yàlla balte jégal ma baaxul suñ diine da koy tere nga koy wane ay heure de heure yoo xamante ne heure d'écoute la wala heure yu ñu suivre tele bi loolu baaxul lolu borom télévision yi dañ ci wara gëna xalaat ak ñi nga xam ñoo yor programme yi en tout cas programme dal njang ak njangalé mom ci li sama xam-xam mom lañu wara gëna a ak information ak ay débat ndax surtout xalé yi nga xam ne ñom ñoy def examen. nakar la ci gëna am ndax té ni ma gisee actuellement ni série yi nga xamante mom lañuy promouvoir ci télé yi ak li nga xam mom lañuy promouvoir dafa sax ak suñ culture ñun gis nañ ni tamit euh, télé yi bari nañ bari go xamantene contrôle bi ci war sax ci sen programme amuñu ko donc ñom leen gëna intéressé rek ay fait social yo xamantene euh ça n'a rien à voir ak suñu culture loolu lañuy gëna promouvoir moy luma ci metti lool lool lool. par contre nak du ñëpp amna na xamantene ñi ngi déroulé ay programme yo xamantene peut-être mengo na ak suñu culture mais nima gisé mbiri yaakaaroon naa ni war nañ ko gën a mën a xoolaat bu baax a baax a baax parce que am nañ ay culture yoo xamante ne buñ ci sukkandikoo ak ay passé yoo xamante buñ ci sukkandikoo gone yi dañ ci mën a jàng mais téléfilm yi ma gis ñuy daw nga xamante ne daanaka lépp ci ndobante lay lay lay lay lay lay lay lay tourné wu ak euh, maanaam wane benn luxe boo xamante ne sax daanaka Sénégal demeewul noonu gone yi di ci bëgg a roy ay trafic maanaam ci lobby yoo xamante ne euh, gone di ci bëgg dugg ndax li ñu gis ci film yi jàpp ni dëgg la euh, gëm naa ne daal ci liy yàq société ci la bokk. dañoo war a mën a xool li nga xamante ni mooy amal njariñ xale yi parce que mais jeunes yi éducation bi dañ ko war a mën a defar parce que fi mu toll nii xale bi nga xamante ni day seetaan théâtre di déglu ay saaga saaga wala di xool ay ay ay ay doxalin yu xamante ni doxalin yu ñàkk fayda day foog ne loolu moom moo loolu mooy dëgg. Pada que fi mu toll nii bi muy toog di ko seetaan da cee jangat jangat am solo jangat bo xamante ni bu ko génnee ne eh yow li baaxut ndax théâtre bi sax ñoo doon wax naan ah lii baaxut nit waru pada def xam nga dafa am importance parce que eh, télé boo ci dee teg da nga ciy teg am solo nga ciy tek waaw waaw tamit eh, comme ça débat yi ñuy tek débat yi tamit ñu ciy concentré wu di ci waxal lu amal solo nit ñi ndax dafa am solo parce que des fois da ngay xool kenn day développé lu am solo da ngay gis keneen dugg ci ay affaire comédien te bokk plateau bi. télévision moom am nañ njëriñ mais dama ci gis yoo xam ne vraiment amul njëriñ ndax suñu culture ni ñu ko ci war a wane des na ndax télé dama jàpp ne day nekk loo xam ne dafa war a yare yeete mais li ma gis ci télé yi moom ci ëpp solo yi ci mooy politique attaqué nit xas nit ngaañi nit moom laa gis ci télé yi. léegi li ñu waroon a gën a wane wane mooy tey loo xam ci la ñu mën a jaar pour yar suñu doom yi ci la pour développer pour réew mi développer loolu man vraiment li ma ci doon seen ci télé yi xam naa gisaguma ko ñu defaraat télé yi am ay programme yoo xamante ne bi danañu jariñ moo xam ci diine ji la wala ci culture bi wala ci loo xam tey day am njariñ pour Sénégal ñu mën a développer réew mi man jàpp naa loolu mooy lépp solo waaye télé yi boo xam boo seetaan télé yi film rek lañ ci wane xale yi film yëpp xam nañ ko te nga toog seetaan film boo xamante ni bi doo ko mën a seetaan doog sa doom te loolu bëgg naa tamit ñu xam ne ñun bokkuñu ak yeneen réew yi ñun ay jullit lañ dañoo am ab culture dañoo am ay suñuy mag ñu baax ñu fi nekkoon am lu ñu fi liggéey kon suñ ñuy woon dañoo war woon loo xam tey say boo toogee sa doom boo koy seetaan doo ci rus am na yoo xam tey ji mënunu koo seetaan doog say doom ndax da ngay seeraan ba càgg nga gis ñu def melokaan woo xam vraiment loolu du rafet te loolu du aaday réew mi su ma seen daal ñu gën ko defaraat am na ci loo xam moom vraiment baax na mais am na ci loo xam moom vraiment yarewul yeetul amul lu njëriñ la gannaaw nuroo programme bi nga xam ne mooy seen mandarga gis nañu ne yenn ci ay émission daal dafay yàq gune yi boo gisee société bëri yu yàqu ci télévision yi la ñu jaaree te bu fekkente ne am na noo xamante ne utiliser nañ ko yaakaar naa ne Euh, war nañu mën a li dal yeneen dëkk yi war nañu war a mën a moytu donc daal ñu yor programme yi dañ leen di ñaax ñu gën a defaraat seen toogaay gën a dugalaat espèce njàng njàngale gën a dugalaat li nga xam ne moom moo di Euh, euh, ay débat yoo xamante ne day am sens ak ay euh, waxtaan yoo xamante ne ak surtout information parce que classe d'examen yi xale yi ci nekk yëpp dañ koy soxla yu bëri ci côté information nga ko mën a jëlee te bu fekkee dañ ko néewal bëgg a fësal folklore goo xamante ne dañ koy jéggaani loolu du def lu dul indi déperdition ci suñu société. teg loo xamante ne lu ñaaw la wala lu baaxul la wala laal intimité nit ki wala nga dugg ci vie privée jàmbur moo lay may audimat yaa ngi nax sa bopp parce que ku ne am na vie privée donc loolu dañ ko war di sàmm. Euh, nekk na loo xam ne dafa méngoo ak jamono ni muy évoluer ak jamono ñi muy évoluer mën nañ ne méngoo na daal mooy itam aussi itam am na avantage yu bari na te aussi itam. Euh, leçon la nit ñaa ngi si jëlee xam-xam nit ñaa ngi si am information Nous avons aussi une euh, expérience mais aussi quelques inconvénients par rapport à élèves vie, ak surtout jeunes c'est des moins des mineurs quoi avons aussi un impact négatif aussi mi joué à travers les films euh, les films euh, films amoureux les films sentimentaux, les certains jeux qui sont violents aussi manam yenn yenn yenn publicité mensongère aussi itam nek na ay impact négatif yo xamné ça joue aussi dans la dans la société moderne mais dans l'ensemble mom on peut on peut dire que c'est positif parce que aussi itam dina permettre nit ñi ñi nga xam ne ñi léegi mënuñoo voyager dañ xam li nga xamné mo xaw extérieur eh, extérieur dinañ mën a xam aussi itam li nit ñi dundé civilisation yi en contact ak aussi ak civilisation yi kon donc nek na lo xam dans l'ensemble dal man nañ né dal amna amna am na c'est c'est bénéfique daal am naa lu ma ci naqari trop nag muy léegi film yu ñu wax ne dañ koy moyen de douze ans dañ koy teg plein matinal bi après midi bi loo xam da nga ne moyen de dix huit ans nga koy teg ci bëtëg bi loo rafetlu wu ma ko te télé dafa nekk loo xam ne si influence bu bon la parce que day jox nit ki euh, loo xam ne si daf koy consommer dafa mel ni li ngay naan wala li ngay lekk kon jàpp naa ne télé yi mën nañ ci sensé lu bëri te it émission diine yi war na gën a bëri yaa ngi dégg li xam ne si dañ koy def ci wàllu élevage war na gën a bëri li xamné dañ koy comme par exemple comme muy mbay mi dafa a bëri ndax réew liggéey yor li ci ñëk ak mbay kon télé yi daf ci war en plus que ça euh, li xamné ne si dafa am solo muy li baax na ëpp li bon mais man ont gis moy télé yi li bon mo ëpp lu baax vraiment. wa légui légui amatu amatu ndagar wala ndagar wala rek télé rek bu la kon nag bu buñ ci may jumlaa cent cinquante daal dana ci baax trop daal ci réew mi. di gënoon mooy ñu développé ay téléfilm yoo xamante ne wax ci talaatay ndeer histoire soxna jaara histoire faa wàddu wele jigéen ñu baax ñooñu ak euh, nit ñu baax ñooñu nga xam ne Sénégal am nañu bañkat yooyu ñu mel ni ay lajoor dior Ngoné Latyr Diop ay Samori Touré euh, je crois que ni loolu doon na bokk li nga xamante ne mooy gën a développé euh, suñu culture dina tax aussi nit ñi doon ay nit ñoo xam ne ñu am valeur. mais dal gis naa dal téléfilm yi bokk na ci liy ñàkkloo valeur ñi nga xamante ne tey jii ni ñooy nitu dëkk bi surtout nag ci xale yi waaw. maanaam di gën a xamle côté diine côté lépp daal loolu mooy priorité parce que boo xoolee télévision yi gën nañ bëri Sénégal mais programme yu ci bari raf reflété wul réalité société bi li société bi di dund ak daanaka programme yu ci bëri boo xoolee c'est un peu diamétralement opposé loolu nag. war nañ ko gën a xoolaat gën ko saytuwaat gën ko defaraat te ñu moytu sensationnel yi euh, sensationnel yi mooy di jéem a laal intimité nit ki wala ngay jéem a dugg ci euh, vie privée jàmbur loolu télévision da ko war a moytu. yell ci ñi nga xam ne ñooy saytu télévision yu Sénégal ñu fexe ba xoolaat programme bu nga xam ne dafay dëppook bëgg-bëggu askan wi ndaxte yéen saay day mel ni kuy seetaan télé yaa nga faneen fu dul Sénégal.